maa ngi leen di nuyu nuyu mboolem nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim di ñaan borom subhaanahu wa taala nga defal ñu njëriñ ci jataay bi jërëjëf. alxuraan jàngale ni ko sunna si yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam jàngale sunu borom moo bëgg te du dañ di bëgg saa su nekk ñu ñu yëg ne moom moom li ci kaw moom li ci suuf mooy chef sunu borom moo bëgg nu yëg ne mooy chef loolu nag nit yëgagu ko ndax nit jàpp na ne lu xew ci àdduna si. Euh, ay lu naturel la lu mën a nekk la waaye sunu borom da ko doon wax ginnaaw moo wax ne lillahi ma fi samawati ma fi ardi maa moom li ci kaw li ci suuf ba noppi ne wa ma yaalamu junuud rabbika illaa hu ku dul moom xamu soldaaram si loolu mooy wara léeg-léeg rek mu yebal ci àdduna benn soldaar bu ñuy wax virus boo xam ne bi waa àdduna mënuñ koo gis te muy faagagal lu baree baree baree bari yooyu lenn la ci xeeti soldaar yi nga xam ne dafay faral léeg-léeg mu yoon leen ci àdduna si feebar bii ñu toll nii ci la bokk yàlla na fi jóg euh, te bañ fay del siwaat ah waxoon na ko de yonent bi la noonu na am na yooyu ba ngeen ca nekkee yàlla dana indi feebar yoo xam ne seen maam yi xamu ko woon loolu moom wax na ko bu ngeen di natt du mat bu ngeen di moytu du ngeen ko nëbb bu ngeen di yàqantey der bu ngeen di jëwante xasante lim ko ba mu yu bari mu ne su boobaa yàlla dana wàcce feebar yoo xam ne seeni bàyyi xamukoon seeni maam xamukoon loolu mu ab addis la bu wér-wér boo xam ne yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ah waaw mu ci ci day mooy su fekkee dégg nga ko fen lu mu la sori sori jàppal ne mi ngi ñëw lu mu la sori sori jàppal ne mi ngi ñëw bi nga jàppee ni mi ngi ñëw da jël say matuwaay matuwaay yi mooy su fekkee matuwaay yu kawe yi la aéroport yi ñu xool ña fay duggee port yi ñu xool ñu fay dugge frontière bi ci suuf ñu xool ñu fay dugge loolu mooy lu li jiitu lu ñaarale la yonte ba jàngale woon mooy bu nekkee ci dëkk bu leen fa dem bu leen fekkee ci dëkk bu leen génn mel ni bu dem fekkee cim réew bu leen génn réew ma bu leen fekkee ci fekkul cim réew bu leen dem dugg ce réew ma loolu beneen beneen yëf la ba ca tege mooy lam daan santaane mooy ku yeewu ci yéen li muy njëkk a def mooy na raxasu isa stayqaza ahadukum falyaghsil yadayhi nee nag ko yeewu ci yenn rek li muy njëkk def mooy raxasu ndegam bi ngay nelaw nga xam ne sa néeg rek nga nekk la la yonent bi sant nga nga nga yeewu rek raxasu kon boo génn sa néeg ne ci kër gi noo war def boo génnee kër gi ne ci quartier bi noo war def boo génne gi nekk ci nekk ci mbedd mi noo war def boo génnee nekk ci dëkk bi noo war def kon loolu benn benn message la bu am solo bu yonent bi jàngale woon jàngalul ko saaba yi tey nag borom xam borom tey nag borom xam-xam ci wàllu médecine ñu ngi koy wax dee raxasu lu bari wàññi leen joxante loxo bi wàññi leen ndaje yi wàññi leen euh, jaxasoo gi yooyu yëpp ñu ngi koy tere yoo xam ne bu një bu yàgg ko lislaam tere woon kon yooyu bokk na ci nga xam ne daal nit ñaa ngi koy fegoo ci feebar yu mel nii yàlla na yàlla fegal fegal leen ko. waaw lu normal la la ca woon daal mooy langage bi ñu ko waxee woon mënuñu ko wala duñ ko def langage bi moo métti woon mais pédagogiquement loolu lu ñu nangu la ndax yonent ma wax ne. su ngeen nekkee cim réew ab feebar fekk leen fa buleen leen génn bu leen fa fekkut bu leen fa dugg Seydina Omar doxal na ko ci jamonoom dafa waaj ba war a dem Cham cortège bi ko war a topp mat nañu soixante-dix jàpp quatre-vingts gëléem ñëpp ay seeni sëf yooyu bi ñuy bëgg a jóg mu am information Cham gi ngeen dem dafa am choléra moom bi mu waajee mu daal di woote ne gaañi képp ko waajoon dellul sa kër te déglu sunu ndigal jenn waay fekk ko fa ku ku mën a diŋat ne ko awaayu ah, da ngay daw dogalu yàlla loolu la ko wax ah yow en tant que Omar ibn Khattab amirul gëm yàlla xam ni yàlla moo lu lu dul wàlle wax a wax ba doyal ne ko da daw dogalu yàlla Omar ne ko naam afirru min qadarillahi ila qadarillah damay daw dogalu yàlla dem ci dogalu yàlla loolu la ko jàngalee lan mooy dogalu yàlla bi muy daw mooy bañ a dem fa feebaroo nekk lan mooy dogal yàlla bi mu jëm mooy toog fi fi ko feebar bi fi mu dégg feebar bi ndax fee bu fa demee la fa yàlla dogal mooy mu dem ñu wàll ko ko mu toog li fi yàlla dogal mooy mu dem mu toog fi mucc mu ne ko afirru min qadarillah ila qadarillah jërëjëf ci laaj bu am solo bi lépp loo xam ne mbir la moom xaalis mën na caa génn am am mën na caa génn teraay ngay àdduna mën na caa génn bu ca nit xëyee bu subaa dana am ko ca loolu même boo demee ci koñ yi mais bu maire ab maire taajee di jaay foonde tey bu amee juróom benn client jàpp fukk bu subaa beneen maire taaj donc su fekkee góor jigéen daa am ci penc mi yu lu am ci ci wàllu teraanga ak ñoom seen yooyu ki nga xam ne mën naa am éducation melut noona mën naa am orientation melut noona mën naa am sàmm gi ñu ko sàmm melut noona mën naa am taxaw gi ñu ko taxaw ak yeneen ak yeneen kon su boobaa kooku mën naa dugg ci yooyu ndax mu am ci teraanga nit ñi am te ñoom dañoo nose li ñuy def am seeni kilifa am seen njiit am seeni nangam ba nga xam ne macha allah ni ñu koy defee ñoom ñoom rek ko ko man waaye daal fe li tax mu yokkoo nii mooy sunu penc mooy def lu waay xëy gont ca am ca dara am ñu la ca fekk ndax ñoom tam ñu am ca dara ni yow xanaa tere nu ko rek lislaam bëggul nuy xewle di ko def xew mu dul xewu diine di ko def xew mu dul xew lislaam xew muy lislaam mooy bu nu leen nu toggal sunu bopp yakkal sunu bopp bokk lekk waaye jàpp na ne daa am ñu ko war a togg ndax ñoom ñooman ba tax ñuy jëli ñu mel noonu loolu nag dina bëggeewu ko noonu jërëjëf moo doon joxe yóbbal pour ndaw ñi dama leen di wax ne ndaw mooy ku ne am na force bu kenn amut force am bi ñëpp soxla ko àdduna soxla force ndaw jigéen ñu soxla force su ndaw entreprise ak société soxla force su ndaw sport bi soxla force ndaw ndaw soxla lim yor la ñëpp soxla ku yor lu ñëpp soxla nag da ngay tànn ki nga koy jox loo ko mooy da nga ko jox ku ko yooyewul kan mi la koy la koy jox mooy boroomam bi ko ko jox da koo soxla yonent bi mim yónni woon da ko soxla lislaam ji ni woote da koo soxla kon ndaw daa war a jël force am boobu jox ko ñetti ñooñu su su ndaw li dee ba ca kanam yàlla fay ko yonent bi fay ko lislaam fay ko mooy mag mu siin mu ne ci taraanga ba muy ndaw la joxoon lim yoroon sunu borom moom Sëriñ Tuubaa nee na fa kullu man baadara waxta sixari ilal huda staraaha waxtal kibari ñu ne ku gaaw a xëy bu ngoonee mën ngaa noppalu yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.